initialement était exclusivement par exemple en anglais. Aujourd'hui, on utilise l'ordinateur ici pratiquement en français. parce que les Français ont faim. Ils sont battus, ils ont, ils ont créé des, trucs, ils ont traduit l'interface de l'ordinateur, ils ont fait énormément de travail pour aujourd'hui positionner le français sur le net. Pareil aussi pour les Japonais et les Arabes. Ouais. Et il faut aujourd'hui, si on ne veut pas que les langues africaines meurent, il faut les positionner sur les nouvelles technologies. Alors donc euh, la plupart d'informaticiens euh, qui s'entremêlent euh, dans les affaires blogging, ils le font euh, en français, n'est-ce pas Mais toi, tu essaies de traduire les choses en, en langue nationale. Pourquoi euh, Parce que je suis nationaliste. Point. <laughs> Mais nation, nationalisme, Elan euh, C'est parce que moi, e et si je le disais en wolof et tu mets là le, le sous-titrage waaw ndaxte man nationaliste la sama dëkk laa nekk li may wax sama message sama dëkk la jagleel ñoom laay waxal donc il faut que ñoom ñu mën a comprendre li may wax. bu may donc bu ma waxee donc bu may wax di bind dama koy bind ci wolof. ci langue nationale. waaw pour mu mën ñu jëriñ. quand je dis j'ai attendu le chanteur. Wow. il a dit ndey àddina amul solo lii teewu mooy lan. lan lii lan. te te teewu. teewu teewuma. teewuma waaw mooy lan. moom xam na ne bakkan moo dee mu ne ma bakkan mooy lii mu ne ko waaw moom xam na ne dee mooy bakkan. bakkan c'est ça. mais ça signifie la vie aussi. dee moo xam na luy dee la oh. vie. on te dit ñu jël sa bakkan ça veut dire on te prend la vie. ah, ah ok le bakkan c'est comme la vie. alors l'utilisation l'utilisation des langues n'est-ce pas euh, la communication disons dans euh, euh, internet ou les autres structures. de la, euh, des nouvelles technologies et de communication posent des euh, problèmes qui ne sont pas les mêmes en Occident, en Europe qu'en Afrique. En Afrique, c'est autre chose. Ici, en Afrique, les langues africaines, elles viennent de naître à l'écriture, avec de, euh, une, codification qui leur donne un alphabet, qui, leur, euh, euh oh, est en train de, oh, on est de créer une terminologie, n'est-ce pas Une terminologie grammaticale, une terminologie technique, termin, euh, euh, technologique, etc. Avec une, avec euh, une forme d'orthographe, des règles d'orthographe et de séparation des mots. Mais lorsque déjà on n'est pas initié à cela et on veut écrire, on veut tout de suite utiliser la langue, on est obligé de se rabattre sur les outils qui appartiennent à une autre langue. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Euh, Facebook, ou en tout cas je veux dire Internet, ouvert et ouvert à toutes les langues, à tous les utilisateurs, chacun avec ses possibilités linguistiques, n'est-ce pas, et ses outils. Mais cela ne veut pas dire que c'est Internet qui va promouvoir les langues, promouvoir peut-être les faire, euh, les ouvrir au monde extérieur. Mais il au, au sens, euh, aucune promotion au sens de euh, l'élévation de ces langues-là à un niveau académique, n'est-ce pas, euh, ou niveau intellectuel. C'est ce que je veux dire. day dafa ne orthographe ñoom bi ñu leen defal c'est pas intéressant ndax day am ay faute ndax ñun sénégalais yi ñu ko déggee noonu lañ koy dindee waaw loolu la waaw mm. mais neen étudiants yi nekk université ñoom ñooy remarqué yooyu noonu. waaw nee na ndax ñoom dañuy def remarque daan na loolu. nee na ñu ne ñu orthographe bi correctul. léegi ñoom mun comme ça ñoom ñi nga xam ne comme genre am ñiy def anthropologie. waaw mun na leen influencer. parce que boobu buñ ko suñu ñëwee ñu jàngalee que nii ñu gis benn Sénégal di ko waxee leneen da leen di waaw moom loolu la lay laaj. comment écrire correctement sans sans l'apprendre à l'école. ça c'est très difficile c'est un peu difficile de. yow moom wante bind wolof am na solo. am na solo bu baax a baax day jëriñ. Mm. am na njëriñ. am na njëriñ bu baax. ban njëriñ. ah ban ban njëriñ. ban njëriñ. waaw xam eh, nga nga nga wax wolof. waaw kii wolof. donc tu parles wolof. waaw eh, Mm, comme le français. parce que le français par français, écrit français. Mm. Le Wolof parle Wolof écrit Wolof. C'est naturel. Hein? C'est naturel.